billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani sadri wa yasri li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokki jullit mbokki taalibe yi ñi ngi yëkkati ab nuyoo bu mag bu sell bi gën a màgg ci muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di ko teg ci loxoy ki nga xam ne mooy kilifa jataay bi di sëriñ ahmadul maxtaar mu nuyul ñu sëriñ siidil maxtaar xalif général des mourides moom mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di ñaan mbooloo mi ñaanal ko Ah, mu yàgg fi lool te wér te lépp loo xam ne waajuram yu baax yi nga xam ne ñoo ko jiite woon nañ ko mu yeggale ko ndax sëñ Sidi Maxtaar moomee kat bokk na ci li sabab bis bi biñ ko ko yëgalee mu wax ne moom de ñaar moo ko gënoon a soxal te kon mi ngi sant yàlla muy bis bu ñu jagleel Cheikh Moustapha ak yeesal kërum njaareem ji kon sëriñ Ahmadul Maxtaar war ngaa sant yàlla bi nga xamee ne suñ borom ci yow la jaarale lool yi kon ñu ngi sant bu baax te di gërëm kon ni ko sëriñ Mbàkke waxee di ñaan tamit sëriñ Axma mu nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba te ñu nekk ci ginnaawam ci wetam nuyu ñu aussi délégation bi nga xam ne moo jóge ci président de la république kon ni ko sëriñ wax rek lay demee sëriñ Mbay Guèye moom moo ñuy jàngal alquran ndax kenn ku nekk xamal na ne Cheikh Mamadou Sa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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل صياصيهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلوها وكان الله على كل شيء jërëjëf sëriñ Mbaye Gueye kon ñu wax leen ne rek bu ñu jullee tisbaar ba pare dañuy dellu si fii ndax waxtaan yi nga xam ne moom lañ war a amal ci Cheikh Moustapha ak témoignage yi bu ñu jullee ba pare lañ koy def te su boobaa sëriñ Ahmadou day génnaat ñëw yeewi mbooloo mi kon ñu jox sëriñ Xaadim Guèye ah, ci lu tolloog ñeenti minutes bisimilah sëriñ Xaadim هل في الورى من سكن المصطفى ورث الخديم ولاية ضم دبي المصطفى ورث الخديم بفضله وبجوده وسجاهه ضم دبي المصطفى أرس الخديم بنوره وجماله وجلاله ضم بباره والمصوى ورث الخديم بسرحه وبهلمه وبهلمه ضم دباره وسم بكون المصطفى قد جاركم قد زاركم ما علي يا أحلى ngaay yéen waa Kajoor kañu leen bu baax war ngeen ak kañ ngir Moustapha ubla mi Mbàkke jawaa walaay ya ahla ñaaxeen ñaaxuleen ñaagaat ne leen bi kalaami sogo ñaagi ngaay yàlla maa koy bàkk leen Cheikh Moustapha dëggalaat ne leen bi kalaam mi am ngeen médaille. dara jo mooy Tuuba wasuma bihi. fa man ja dem na seer ji ñaaxee mbaate ngaay. ya bni Muhammadin li Muhammadin. yowmal xiyaamati sant leen sunu way waay Cheikh Moustapha yaa neex dal nga xel wa ma doruy fegloon jébbal sa baay wa mat gu boot la fa ñuy taggal jigéen yaa leen di jox ay càngaay Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké jëf leen nii lu magal Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacké góor ak jigéen yaa leen di jox ay candaay ku la dab nga dab ku la fay nga fay la te doonu fay mboolem jirim yeeg baay yaay siyaay yaay ak teraanga yi mag ñi Bambara la woon moo tax yilif nga ba jàll Saalum jàll xaay yaa xam teraangay waa Kajoor ak waa Bawal yaa yor songu yi fi daa dem làmbaay omba ganaar wa mat wala kenn réeratul yaay tiitaru baa doole yeeg ñi fi sant njaay yaa musawaamul musawaamul musawaam yow may xiyaam ragleen fa ay médaille fa tabarakallah sëriñ xaadim jërëjëf kon ñu am ñoo xam ne rek euh, dañ leen di jukki euh, sant leen ki ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom sëriñ Fàllu xam nañ ne biñ jëfee bis bu njëkk ba ci 2010 moom moo ko jiite woon fii kon ñu ñaanal ko tey yàlla taas ñu ci barkeem ñu ngi sant sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiiru teew na fi ak délégation bu mag ñi ngi sant tamit gouverneur de la région moom ni mu ci jàppee gis nañ ko taxawaay bi rafet na moo fi teewal administration bi lépp loo xam ne waroon nañ ko cee def rek def na ko ci dara desul moom ak préfet ak chef de service régionaux yeeg yëpp président conseil régional muy Serigne Fallou moom xam nañ ne bis bi bisam la moom ak ay collaborateur am moom tamit jàpp na ci bu baax a baax ak Bougane Gueye moom tamit jàpp na ci bu baax a baax ak Papal Ami Boutique ñi ngi wax ne cassette yi nga xam ne mooy première édition bi am na fi kon dañuy jox sëriñ Moustapha Diop Ndiack moom moo ñuy jàngal discours arabe bi Serigne Moustapha tafadal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 alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب fadilat alxalifati alam liltaifati almuridiya alcheikh Sidi Almuxtaar Mbakke min ala minasati hada alsarx alsaqafiy almubarak natawajjahu biltaxiyati walziyarati walshukri aljazil ila xadratikum wa ila jamici xadarati ashuyuux fi buyuti usrati alcheikh alxadim radi allahu anhu wa ila ahalihim wa taabicihim حفظكم الله جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين حضرة الشيخ أحمد المختار ابن الشيخ محمد المصطفى خليفة دار القدوس والمشرف العام على هذا اليوم الثقافي والوفد المرافق من جميع بيوت الشيخ محمد المصطفى من الأهالي والأتباع حضرات السادة رؤساء الشرف لهذه الجلسة الثقافية العلمية الغراء سرين مصطفى مكي ابن الشيخ صالح مكي سرين مصطفى مكي ابن الشيخ عبد الأحد مكي سرين مصطفى مكي ابن الشيخ عبد القادر مكي سرين مصطفى مكي ابن الشيخ عبد الله مكي سرين مصطفى مكي ابن الشيخ محمد المرتضى مكي والوفود المرافقة من الإخوة والأخوات حضرات ممثلي الطرق الصوفية والمؤسسات الإسلامية في داخل السنغال وخارجها معالي الوزير مدي كينيا ممثل رئيس الجمهورية السنغال السنغالية الحاج عبد الله ود والوفد المرافق معالي السيد محمد إبراهيم لو محافظ إقليم جرمل حضرات الشيوخ والوفود ممثلي كبار الأطباء أيها الحضور الكرام والوفود القادمة من كل مكان في هذا البلد الآمن تتشرف الهيئة المنظمة لهذه لهذا اليوم الثقافي باسم الخليفة بالترحيب بكم من على هذا المنبر الثقافي الميمون وتقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وسهلا ومرحبا بين أهاليكم وذويكم اسمحوا لي حضرات الضيوف الكرام قبل الشروع في تناول برنامج العمل لهذا اليوم الأغر أن أقوم بعرض موجز لهوية الهيئة المنظمة لهذه الجلسة وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية لقد أنشئت الهيئة بأمر وتوجيه من الشيخ أحمد المختار يهدفان إلى إقامة اليوم الثقافي هذا وتتألف من دائرة أحفاد الشيخ محمد المصطفى wa a'daa min jamii'i ad-dawaa'ir al-mumassilati li usrati Daar al-Quddus wa xilaal al-mudaawalaati wal-munaaqashaati fi jalsaatiha ad-dawriyya tabalwarat fikratu tawsi'ati muhimmatiha li tashmala diraasata ishkaaliyyati at-turaas ath-thaqaafi al-muriidi wa tahammusan li haadihi al-fikrati al-asiila iqtaraha ba'du al-a'daa وضع اللبنات الأولى لعرضها على المسؤولين وجميع المعنيين بهذا التراث الثقافي المريدي ومن تلك اللبنات ala sabili almisaali la alhasr awalan taqwiyatu rawabit aluxuwati walwaxdati waltacaawuni waltacaaruf bayna jamici atbaaci alcheikh alxadim tanfidan li awaamirihi alrabbaniyati radi allahu anhu ثانيا المحافظة الفعالة في إحياء وترسيخ الأخوة الإسلامية العالمية ثالثا جمع ومراجعة وتدوين ونشر هذا التراث المفيد الغني alxaafil bil amjaadi wal mafaaxir rabian ibraazu dawri sadaarati alladi lacibahu alcheikh Mouhamad al Moustapha fi irsaai ususi wa qawaacidi hada turaas ka awali xalifatin li cheikh alxadim بالإضافة إلى الأدوار التي لعبها الخلفاء التابعون من بعده وكذلك جميع الشخصيات البارزة جميع الشخصيات البارزة التي ساهمت في إحيائه على مر العصور خامسا iqamatu ندوات وورشات عمل وأيام ثقافية حول المعالم والفنون والآداب والمخطوطات والشخصيات المريدية المختلفة سادسا توعية الأجيال وتنمية مشاعر القيم والمثل العليا الإسلامية مثل الأخوة المحبة التعايش السلام التعاون على البر والتقوى إلى آخره أيها الإخوة والأخوات تلك هي بعض الأهداف والتطلعات التي توصلت هذه الهيئة إلى ضبطها وها هي تعرضها على مسامعكم لعلها تكون منصة انطلاقات لنقاشات مستقبلية مفيدة وموسعة حول هذه المهمة النبيلة التي ينبض لها قلب كل مسلم مؤمن يهتم بأمور هذه الأمة ومصيرها لهذه الأسباب ندعو جميع المهتمين والمعترفين بأهمية هذا التراث ila tabanni tilka an-nazrati al-khadimiyyati al-muridiyya wal musahamati fi dirasatiha wa nashriha wa ardiha ala al-alam min khilal al-musharakati fi nashatat al-hay'ati at-tanzimiyya wa fi al-khitam natawajjahu bi-shukri al-jazil باسم الخليفة الشيخ أحمد المختار إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا اليوم العظيم ابتداء بضيوفنا الكرام ومرورا بالهيئات والمؤسسات الاجتماعية والمالية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والجمعيات الإسلامية والدوائر المريدية والوفود المشاركة والشخصيات البارزة والجنود المجهولين الذين يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jiital ci suñu sant ak nuyu ak ziyaar ak Cheikh Sidi Mouhamed Xalifa bi di ñaan suñu borom yàggal ko ci moom te sàmm ko ba mu mën a ko ba leen naa yi mu sëmm ci yoonu Sëriñ Tuuba ak yoonu Islam di nuyu mboolem njabootu Xaadimu Rasuul gi fi teew ak mbokk Sëriñ Tuuba yëpp ak ñi ñu àndal yëpp di nuyu ki nga xam ne moo fi toogee jataayu Cheikh Mouhamadou Moustapha di Sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko moom mi nga xam ne mënoon jiital bis bu tedd bii te ànd ko njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha bi yëpp ak taalibe di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañu dara jaalee bis bi mu di lenn ci ay turandoo yu nekk ci biir kër Cheikhul Khadim muy Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Saliou Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad sëriñ Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak délégation yi ñu àndal yépp di nuyu ñi fi teewal këri gi yi ci réew mi ak ci bitim réew yépp di nuyu yépp ñi nga xam ne ñoo fi teewal président de la république ak ki nga xam ne mooy gouverneur ak préfet de la région de Diourbel ak délégation yi ñu àndal yépp di nuyu mbooleem Cheikh si ak mbokk yi fi teew fu ñu mën a jóge comité d'organisation baa ngi leen di dalal jàmm ci turu Cheikh Ahmadul Mokhtar Mbacke mi fi toogee jotaayu Xaadim mi fi toogee jotaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Xaadim Rasul mu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon bala ñoo dugg ci biir programme bi ñu jéem a présenté mbooloo mi lenn ci liggéey ak naal ak jubluwaay yi nga xam ne moom la comité d'organisation bi am comité bi nag ñi ngi ko sos ci ndigalul Serigne Ahmadul Mokhtar ngir taxawal bis yu mel nii mu doon comité boo xam ne mu ngi làmboo daayira sëti moo Modou Moustapha yi ak membre yi nekk ci biir daayira Daara Xuddoos yépp ci biir waxtaan yi baaxoo di def ñu am xelum yaatal liggéey bi boole ci jàngat ak saytu ndonol yoon wi looloo tax ñu ne loolu di koy mën a jëmmal mooy yii di ñëw te mooy yi ñuy bëgg a lim ñu di ko gaaral kilifa yi ak képp koo xam ne ndono loolu yitteel na la te ba ci jëkk mooy dëgëral mbokkoo ak dimbalante ak xamante ci mboolem waa kër sëriñ Touba ngir wéyal ndigalal Serigne bi ñaareel bi ci topp mooy def yitte jumat sëkk ci dundal mbokkoo gi ndox ci diggante jullit ñi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna ñetteel bi mooy dajale ak nafar ak saytu jeexit yu am solo ji fees dell ci mbaax ak i ngëneel ñeenteel bi mooy wane wàllu gu rëy ci ndono loolu nga xam ne ak Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi woon te Serigne Modou Moustapha tegoon fondement yi ci njëkk ngir li mu njëkk a wuutu Serigne ak yeneen xalifa yi fi jaar ginnaawam ak wane képp koo xam ne feeñoon nga ci ñu luy sàmm ndono loolu wala mu di ko dundal juróomeel bi mooy taxawal ay ndaje ak bisi liggéey yu jëm ci culture ak xaral ak yar ak lépp loo xamante ni bii lu jëm ci personnalité yoonu murid la juróom-benneel bi ci mujj mooy fexe ba jëmmat ci ndaw ñi lépp loo xam ne mooy jikko yu rafet ak melo yu kawe yi nga xam ne moom la lislaam tànn yu demee ne ak mbokkoo ak soppante ak bëgg jàmm ak dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla ak di jéggale ca waxtu wa nga ca waxtu wa nga mën a fayoo ak kenn ku ne sa moroom gënal la sa bopp ak fàgg lu lew ak di moytu mbooleem li ñu sib ak ñaawteef yépp ak di leen dénkit it bépp melokaan boo xamante ni bii melokaan yu baax la yoo xamante ni bii lu islaam digle la te ñu soxla ko ci jamono ji ñu toll kon yéen mbokk yi lii lenn la ci jubluwaay yi nga xam ne mbooloo mi tënkoon nañ ko ngir ñu dégtal leen ko ngir mu mën a nekk ab tàmbale ci ay waxtaan yu am njariñ yu ñu yaatal ci lu jëm ci biti ci yu jëm ci yitte yi nga xamante ni bii mooy lu am solo nii ñu fi waxoon léegi mu di loo xam ne képp ku di jullit te sa mbir yi diine ñor la dana la yitteel te dana sedd sa xol ndaxte kat jàngat dono yi fi nga xam ne moom la ñu Sëriñ Tuubaa bàyyee ci jamono jii di xarnu ñaar fukk ak benn warteef la saa su nekk te kenn waru koo def ña des toog ndax ndonolikat day gànjar gu seer boo xam ne àdduna sépp dañ koo ñàkk te di ko wër ñun nag sëriñ Touba baaxee ñu ko teg ko ci suñu loxo kon nag liñ ci war mooy fomp ko ba mu set ndax àdduna man cee jariñu ngir sabab yi nag ak yu ne demee la woo mbooleem ñi nga xam ne yittewoo nañu solos ndono loolu loolu moo waral itam ñu war a jàngat ak tasaare ak wane ci àdduna sépp jaare ko ci comité bi nga xamante ni bii ñoo yore liggéey bi yéen mbooloo mi ginnaaw bu ñu leen gaaralee lii ca na mu gën gàtte li waral ñu taxawal bis bi noo ngi sàkku ci ñépp ay laabire ak i xalaat ci programme bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké ngir jeexal noo ngi jubale ay cant yu mat ci turu Serigne Ahmadul Mokhtar Mbacké képp koo xam ne jàpp nga ci yéwénu bis bi moo xam lu jege wala lu sori tàmbalee ko ci sunu gan yu tedd yi ak kuréel yi nga xamante ni bii dañoo taxaw ngir saytu dundu doomu aadama moo xam ci wàllu alal la wala wàllu communication wala politique ak bépp daayira boo xamante ne bii participer na ci ak fu ñu mën a jóge ak délégation yi nga xamante ni bii teew nañ fi ak mbooleem jàmbaar yi nga xam ne lu fi taxaw ñoo ko taxawal te duñ ci sàkku sax ku leen xam wala wala ko leen ci sant ak képp koo xam ne wuyu si nga woote bi ndax lii mooy wane di firndeel dëggu gi nekk ci yéen ak lu baax li ngeen bëgg te mu nekk ci yéen ak wéye ndigal jërë ngeen jëf yàlla nañ leen yàlla fayal wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Jili Ba kon ñu wéy rek di jottali ay cant ak ay ngërëm waaw ndax ñi ngi sant kon sëriñ Murtala moom sëriñ Fàllu gis nañ ko ci jotaay bi teew na ak sëriñ Moustapha moom sëriñ Mourtala moom tamit teew na sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdou Khoudous moo fi teewal njabootu Daaru Musti yëpp di sant sëriñ Abdou Fata moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak njabootu sëriñ Cheikh Mbacke yëpp gis nañ taxawaayam rafet na di sant sëriñ Cheikh moom sëriñ Aliou moom it gis nañ taxawaayam wax dëgg yàlla rafet na lool di sant sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou moom Cheikh Moustapha di sant sëriñ Cheikh moom sëriñ Ibrahima. moom Cheikh Moustapha di sant sëriñ Xaadim moom sëriñ Mahmadan di sant sëriñ Moustapha moom sëriñ Fallou di sant sëriñ Cheikh moom sëriñ Xaadim di sant njabootu Cheikh Moustapha bi yëpp kon dañuy jox kàddu bi ki euh, nga xam ne moo ñu defal discours bi ci français muy sëriñ Xaadim moom sëriñ Aliou sëriñ Xaadim la parole est à Khalif de Serigne Mohamed Mustafa, qui nous a fait l'honneur de présider personnellement la rencontre aujourd'hui. Et confondons dans les mêmes remerciements la délégation des fils, les présidents d'honneur, les homonymes de Cheikh Mohamed Mustafa, à savoir Serigne Mustafa Serigne Salih Mbacké, Serigne Mustafa Cheikh Abdoul Khadr Mbacké, Serigne Mustafa Cheikh Abdoul Ahad, Serigne Mustafa Cheikh Serigne Moustapha Cheikh Mourtada Mbaké. Nous remercions particulièrement les femmes de la famille de Serigne Touba ici présentes, nos frères, représentants des confréries au Sénégal et à l'étranger. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maître Madi Kenya, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Maître Abdoulaye Wade, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne. Mention spéciale à Monsieur le gouverneur de la région, Monsieur qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Et l'ensemble des chefs et les disciples ici présents, toutes les personnes qui sont ici et qui viennent de toutes les régions et de l'extérieur. À toutes et à tous, Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, président de cette cérémonie, vous souhaite la bienvenue au nom du Khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Serigne Ahmadou Mokhtar nous a demandé de vous dire que vous êtes chez vous parmi les membres de Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons dire quelques mots sur les objectifs et attentes assignés au comité d'organisation de cet événement, qui a été créé sur l'instruction de Cheikh Ahmed Mokhtar avec comme tâche l'organisation de la journée culturelle Cheikh Mohamed Moustapha. Pour réaliser ces objectifs, le comité d'organisation a travaillé avec le daïra des petits-fils de Cheikh Moustapha, mais aussi avec le daïra de la famille de Cheikh le comité d'organisation a perçu la nécessité d'organiser des journées culturelles et de travailler à renforcer la solidarité et l'entraide mutuelle entre les membres de la famille. Ce faisant, nous voulons renforcer les liens de parenté, encourager la connaissance mutuelle, créer les conditions d'unité, de solidarité et d'assistance mutuelle, non seulement entre les membres de cette grande famille de Serigne Touba, mais aussi et surtout entre les disciples entre, entre, entre tous les musulmans. Cela est une recommandation de Dieu qui dit dans la sourate Al-Maïda wa taawanu ala al-birri wa taqwa al-ismi wal udwan. L'autre aspect consiste à développer les relations de parenté islamique qui doivent unir les différentes familles musulmanes, rassembler, écrire et disséminer le riche patrimoine de la tariqa dont une bonne partie est encore ignorée par les générations présentes et en faire un bel héritage pour les générations à venir. faire connaître, faire connaître Cheikh Mohamed Moustapha et son œuvre grandiose dans l'histoire du mouridisme. Montrer en quoi Cheikh Mohamed Moustapha a tracé la voie de la Mouridia que ses frères successeurs ont emprunté jusqu'ici. Montrer aussi le travail remarquable accompli par les différents fils de Cheikh Ahmadou Bamba. des journées d'études sur les trésors écrits par les anciens jusqu'ici laissés en jachère afin de les compiler pour les musulmans éveiller la génération actuelle sur les valeurs fondamentales de l'islam, connaître la religion, l'importance des liens de parenté, la solidarité et les exigences de paix et d'entraide mutuelle entre les musulmans, le rapprochement des civilisations, la culture du pardon, la, le secours des personnes en détresse et la recherche du gain licite. Voilà d'autres rôles dévolus au comité d'organisation, mettre le riche patrimoine maurite May Allah protect us from the curse to Satan. In the name of Allah, the, the benevolent, merciful, first of all, we want to show our grateful to the Lord, Master of all worlds, and the great provider, and we humbly bow down to him and reconcile. We also pray for peace on Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, his family and his companions. We implore Allah to give long life and good health to our respected guide, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Caliph of all Murids. This day is an occasion for us to give unlimited thanks to him and the other religious authorities representing the various branches of the great family of Sheikh Ahmad Bamba. We pray for Allah to protect them and we enforce them so that they can accomplish the work they are doing in Islam and turn into realities the wishes of Sheikh Ahmad Bamba in the Murid Brotherhood movement. We also thank Sheikh Ahmadou Makhtar Mbake, who came to preside over today's event. We also thank likewise the delegation of the grandsons, the honorary presidents composed by the homonyms of Sheikh Muhammad Mustafa, Serigne Mustafa, Serigne Saleh Mbake, Serigne Mustafa, Sheikh Abdul Qadir Mbake, sëriñ Moustapha Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Moustapha Cheikh Abdoullahi Mbacke sëriñ Cheikh Murtada Mbacke. We give special thanks to the women of the family of Serigne Touba, our friends who represent the other brotherhood movements of Senegal and abroad. Minister Madi representing His Excellency President Abdoulaye Wade and his delegation uh, particularly Mamadou Ibrahim Lô, all the sheikhs and disciples here present, all people coming from the regions and abroad. To them all, Sëriñ Ahmadou Makhtar, who is presiding over this ceremony, say welcome on behalf of Sheikh Sidi Makhtar Mbacké. Sëriñ Ahmadou Makhtar has asked us to tell you that you are at home among the members of your own family. Before going deeper in the program, we wanted to say a few words about the objectives and aims of the organization committee of this event that was created under the instructions of Sheikh Ahmed Mahtab and whose task is to organize the cultural days of Sheikh Muhammad Mustafa in order to materialize this objective, the committee worked with the Daira of the grandsons of Sheikh Mustafa, as well as the Dairas that exist in Sheikh Mustafa's family. During the first meetings, the committee felt the need to organize the cultural days of Sheikh Muhammad Mustafa and to reinforce solidarity and mutual assistance between the members of the family. In doing so, we want to reinforce the kinship relations, encourage mutual acquaintance and mutual help, not only between the large family of Sering Tuba, but also between the disciples and all other Muslims. This is something that Allah Himself recommends in this Quran verse in Al-Ma'idah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Another aspect consists in developing Islamic brotherhood ties that must get together all Muslim families together, write and disseminate the rich heritage uh, of the Muridir, which is still unknown to large numbers of people in today's generation, and make it a beautiful legacy for the generations to come. To publicize his fantastic work in the history of the Muridiya to show how Sheikh Mustafa has paved the way of Muridiya, the way which, his successors have been taking up to now. To also show the, the, work accomplished by the different sons of Sheikh Ahmadu Bamba, to organize seminars on the text written by the, the ancient Moritz and which are so far left untapped and to compile them for the use of the Muslims. To sensitize today's generation to the fundamental values of Islam, knowledge of Islam, the importance of kinship, solidarity, the need to have peace, mutual assistance between Muslims, fair understanding between civilizations, the sense of forgiveness, the help to the needy persons, and the search for illicit uh, wealth. Here are other roles of the committee. To share the rich heritage of the Meridia and work for the advent of a world of peace, tolerance, and understanding. This legacy is very dear to us So we must make sure its purity is preserved by getting rid of all negative influences which penetrate it. is an occasion for us to encourage all researchers to disseminate the fabulous work of Sheikh Ahmed Bamba. We would like to grasp this opportunity to invite all people here present wherever they come from and all those who will hear who will hear the message outside Senegal to contribute to the achievement of uh, these lofty objectives. In a few minutes, one member of the committee will read the agenda of the ceremony. So, with your permission, we would like, uh, on behalf of Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké, on behalf of all sons and grandsons of Sheikh Moustapha Mbacké, and on behalf of uh, all the sheikhs and religious dignitaries uh, to express to this wonderful assistance our deep thanks. We give a thousand thanks to the members of the organization committee and to the different commissions for the remarkable work uh, they achieved. We can't find the right words to say thank you to all delegation, Muslim associations, dairas, the political personalities, Uh, representing His Excellency President uh, Abdullah Wad, we fully appreciate the beautiful way they supported us in the organization of this Cultural Day. Once again, we say thank you to the tireless organizers who have been working for the success of this event for many months with dedication generosity, loyalty, commitment, and love for Sheikh Ahmadu Bamba. Thank you for attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eh, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen balu ak bu baax a baax a baax bi may ñëw di wax Cheikh eh, Mouhamadul Bachir Mbacke mi nga xamante ne xalifa général des Mourides Cheikh Ahmadul Makhtar Mbacke moo ko fi yebal mu teewee fi jëmmam. yor kàddoom dikk ak jëmmam sëriñ Mouhamadul Bachir daf maa wax ni ma sëñ bi def ko ni barab bii mu ñëw li mu fi doon moom la fi Cheikh Ahmadul Maxtaar doon li muy indi moom mii ak li ko yëkkati mooy li nga xamante ni moom la fi Cheikh Ahmadul Maxtaar taxawe kon mel na ni su fi sëñ Ahmadul Maxtaar nekkee sëriñ Sidul Maxtaar la fi nekkal yoonu murit la fi nekkal Cheikh Moustapha la fi nekkal sëñ Touba la fi nekkal ndax liggéey bi day benn njaboot gi ñoom nee na ñoom ñépp benn lañ lu nekk ci loxol kii ci liggéey bu jëm ci sëñ Tuubaa jàppal ni kenn ku ci nekk dajaa wuutu sa morom kon Cheikh Mouhamadul Mokhtar sëriñ bi nee na yaa ko wuutu ci barab bi kàddu yim la andil mooy yëf yi day lenn li ñuy woote di lenn fi mu jëm di fenn ci ko moom di kenn mu Cheikh Moustapha Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul sa teewaay wuutu na ko ah, ñu dolli ci tuuti ci leeral li nga xamante ni sëñ bi wax na ko mooy bis bii nga xamante ni bis bu màgg la ci lislaam di bis bu màgg ci yoonu murit di bis bu màgg ci képp koo xamante ni sa yaakaar ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa yaa ngi ko jaarale ci Cheikh Ahmadou Bamba xam ngeen ni liggéeyu bii nga xamante ni ci lañ nekk te mooy liggéeyal lislaam ci nu ko xàllal ba mu jàpp ni sas nu ko te dénku lu may moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba responsabilité boobu yi nag sëriñ bi nee na ki mu ko jëkk jox teg ko ci loxoom mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha kon kooku jëmm la joo xamante ni dafa wuutu sëriñ tubaa ci kaw suuf wuutu sëriñ Touba ci njaboot bi jëkk a wuutu sëriñ Touba ci l'islam bu xewlee yoonu murit wépp xewle bu xewlee l'islam bi yépp xewle kon sëriñ euh, sang boobu di Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, manees naa wax ne lu nit di am ci sëñ Touba da ko cee am ba pare am cër beneen cër boo xamante ni ñi ko ci fekk bariwul ndax ñi sëñ tubaa gërëm ñëpp defar leen lu nit defal sëñ Touba ba mu gërëm la ba nga am cër boobee ci Serigne Touba sëñ Modou Moustapha da ko defal Serigne Touba ci ab liggéey nit taalu bi di liggéeyee sëriñam jébbalu di ko liggéey jàppe boppam ab taalu bi di jëf li taalu bi ba ku mu seexal wala ku mu defar la am ca ca ca liggéey boobee sëñ Touba sëñ Modou Moustapha am na ko Cheikh Ahmadou Bamba ci dolli ci cërum ñaareel bi muy bokk gi mu bokk ci Serigne Touba mu bokk ci ñi ñuy tudd di tudd Serigne Touba Serigne tubaa doy loo ko ci lu bari li ci jiitu jëmmi boppam xam nga nit li ëpp ci mbiram mooy jëmmi boppam te Serigne bi dénkoon ko su liggéey bi matee fii ci njaareem mu ne ko nanga ma nanga ma toppatoo ba yóbbu ma Touba ak yeneen ñu ca topp yu mel ni jumaa tubaa Touba liggéey boobu nga xam ni ca njaalbeen wax naa ko léegi. am na ñaari laaj yu fondamental yu fi taxawoon yoo xam ne sëñ Tuubaa teel na ko tontu waaye ñi gëm ànd ak moom di di ay njabootam di ay dongaam ñoo nangu woon tontu loolu waaye àdduna nanguwu ko woon dañ ko doon bàyyi xel mooy fan la sëriñ Touba di mujje ak tubaab bi laaj la boo xamante ni depuis le 5 septembre 1895 ci la ci la laaj boobu samp fan la sëñ Touba di mujje ak tubaab bi sëñ Tuubaa moom teel na ko tontu xam na ne day dem day dellu si day liggéey la rasulullaay loolu rek moo ko yëkkati ak xeet bi jaam yi waaye loolu ñi mu am jox ko seen bopp ñoo ko mën a nangu waaye àdduna nangu nangoo gu ko woon sëñ Tuubaa dem ci géej gi diir bi fi nekk ba dellu si waat njaareem laaj ba dellu senegal laaj bi nekk fi ñu déporté waat sëñ bi yóbbu Mauritanie laaj bi nekk fi ndax lépp liggéey bi sëñ Tuubaa mi ngi ko ànd ak loxoy tubaab bi mu dellu si laaj bi nekk fi ba ni Serigne Touba jógee ci ñëw njaareem laaj bi nekk fi kañ la ko kañ la tontu li leer ci àdduna bépp ba ci tubaab yeeg képp ku bëgg sëñ bee ku ko bëgg la kuy dox ci kaw suuf mooy 1927 bi liggéey bi matee fii Cheikh Mouhamadoul Moustapha yóbbu ko tuubaa ci guddi àllarba bis boobu yi la tontu li ci ni sëñ Touba Touba lay jóge fa lay dellu fa lay dëkk mu des laajum ñaareel bi laajum ñaareel bi mooy tubaab bi comme naago woon nañ ci mbirum sëñ Touba ba mën a luñ ko dara li fi des mooy njaboot bi nañ bàyyi bu sëñ bi demee léegi ñu jël adversaire comme njabootu Serigne Touba laajum ñaareel bi mooy fan la njabootu sëriñ Touba di mujje ak tubaab bi Cheikh Mouhamadou Moustapha toog wuutu fi Serigne Touba uf njaboot gépp ñim bokkal Serigne Touba am na ci ñoo xam ne dem nañ ba jàpp ni Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy seen wayjur ngir affection paternelle bi war a dox diggante doom ak wayjur moo moo doon moo doon dox ci seen diggante mu yiir leen sàmm leen ba mel ni ay doomi boppam ñi ci di mag mu def leen ni boppam di leen xoole jëmmi sañ tubaa di xeeñtuwaat sëñ tubaa ci ñoom gi seen kilifa yoon bépp mu saytu ko dalal xeli mag ñi delloo si seen sago uuf leen yërëm leen yiir leen di leen ñaanal di leen dimbali di leen toppatoo di leen saytu ba xat dammul ci genn wet ba ci 1900 eh, eh, fondeel Serigne Touba jumaayam ji ba mu tegu ci yoon organiser yoonu murit ba teg ko ci nos ko ci yoon woo xam ni ba bis bii may wax ak yow ci organisation sëñ Modou Moustapha ci la yoonu mu murid di dox 1945 mu xam ne lépp tege na ci yoon wuy ji boromam laajum ñaareel bi daal di sotti mooy mbirum sëñ Touba ci yoon lay tege ci lislaam njaboot gi benn lañ dañuy jàppante soppante di fawandoo di tegandoo bokk luñ bëgg nekkal fi sëñ Tuubaa nekkal fi lislaam sëñ Mourou Moustapha moo woote loolu xàll yoon bi ba mu leer ba lépp tegatu yoon 1945 mu dem ba fi may wax ak yow ku fi ñëwati nekkal fi sëñ Tuubaa ak képp koo séen muy dem te bokk ci sëñ Tuubaa loolu mooy yitteem loolu mooy ay tànkam sëñ Mourou Moustapha kon moo tontaat àdduna ni mbirum sëñ Tuubaa fi mu jëm mooy lii ñu fi dajale tey mooy li nga xamante ne noonu la yoon wi doxee ba ilaa yawmi diini jàmm rek àndandoo nekk benn liggéeyal yàlla jaamu yàlla liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te jàpp ci Serigne Touba bañ ko yemale garab loolu sëñ Modou Moustapha moo ko leeral mu nekkoon nit koo xam ni lépp yoon wi mënees ne daje nañ ci moom euh, wala tey wax ni ku ñu la tuddee di nga ko xottil mbubb sëñ moom ku ñu ko tuddee da koy summil mbubb lim nañ léegi ay turandoom dafa mel ni mbubbum bëgg sëñ tubaa akuk taalibu bu mat sëkk ak xam-xam bu leer ak fulla ak jom ju mat sëkk mbubb moomu da koo summil sëñ Muhammadul Moustapha ni ko sëñ Saaliwu tuddee mu mel ni doxuk bokk ak yaatal ko ak lewet ak safoo ñépp ak fu sa mbokk xewlee nga jóg ànd ko moom ba mu jeex dafa mel ni loolu yi sëriñ Modou Moustapha da koo summil sëñ Muhammadul Moustapha ni ko sëñ Abdoulahan Mbàkke tuddee dafa mel ni jokkoo ak mag ñi sottanteeg ñoom xalaat jël ci ñoom xam-xam bu leer naññ foo toog ci ci ci ci jullit ñi man leen a toog ci yoon wu leer naññ woo xamante ni da am ay marajan yi wóor sëñ diw nee na ma jàng naa lii fi barab sàngam lewet lool xam lu bari xam-xam bu leer ci mag ñi dafa mel ni mbubb moom yi sëñ Modou Moustapha mi ngi ko summil sëñ Mouhamadul Moustapha mi ko sëñ Abdul Xaadir tudde mu mel ni euh, am njariñ xettali taalibe yi dox fekk leen fu ñu mën a nekk lewet sa baati nag sag wilaaya nga jëme ko ci di leen dimbali ci waxtu wu nekk fu ñu nekk nga fekk leen fa lay seen yitte nga fajal leen ko mbubb moom yi dafa mel ni Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi ko summil sëñ Mouhamadul Moustapha mi ko sañ Fallou Mbacké tudde muy sëriñ Modou Bousso Dieng xam naa du mën a sori di lim waaye mu mel ni xam xam xam àdduna ak nangoo liggéey ak nosu ak ak organiser adduna organiser njaboot tënk leen ci diine ak lislaam ak saytu leen bu baax ci liggéeyal sëñ Touba dafa mel ni mbubb moom yi sëriñ Mouhamadul Moustapha mi ngi ko summil sëñ Mouhamadul Moustapha mi ko sëriñ Basiru Mbàkke tudde kon lii manees naa wax ni mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha manees na ko ma euh, euh, manees na ko junj rek ci mbirum sëñ Modou Moustapha li fi des yéen taalibe ci kàddu Cheikh Mouhamadul Bachir sëñ bi nee na ngeen dooleeku bu baax Pastef ak gën a jàpp ci Serigne Touba boole seen bopp muy benn tey sàkku jàmm fu nag di ko dox di ko wax bëggante te xam ni ak cofeel mooy lii mën a dimbali nit sallallahu alayhi wa dafa wax ni almaru mahamman ahabba sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu leeral ci boppam dafa wax ni fala yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min maalihi eh, eh, eh, min min min ahlihi wa maalihi wa naasi ajmain am feneen foo xam ne dafa wax ni laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain kenn ci yéen seenu ngëm yàlla du mën a wér yéen jullit ñi li fekk man Muhammad gënaluma la sa sa sa sa waa kër gënaluma la alali àdduna gënaluma la say doom gënaluma la sa baay gënaluma la mbokk moo mën a am ndax wa naasi ajmain lépp da cee dugg gënaluma la doomu aadama yépp sëñ xam nga gënal moom day am ñaar bii bëgg naa ko bii bëgg naa ko waaye bii moom a ma gënal sëñ se Ahmadou Bamba dikk moom ne ko faruma bëgg lu may yow ba ba nga di ma gënal sama cofeel gépp yow la mahat mahabbati al muxtaara sayidana xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadi lfidaa lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada mu ne ko poñoxtitum àdduna xajul ci sama xool amul ci place yaa ko fees ak i doom ak i njaboot ak taalibe ak sama waa kër lépp lu may bëgg day dem ci yow dellu si ci ñoom waaye du tàmbalee ci ñoom jëm ci yow yow rek yaa bëgg yaa fees sama xol bëgguma leneen nga di ma gënal yow képp laa bëgg ñaa bu gënal bi am bëgg leneen day am sëñ Tuubaa sallallahu alayhi wa sallam la bëgg kon moom moo taxaw ci taxawaay boobu nun ñi nga xam ne amul lu may sëñ Tuubaa cofeel googu nan ko ko jox cofeel gi ni mu ko koy joxe nag mooy lu mu wax nu def ko lu mu tere bu mu ca seen boole suñu bopp di fabandoo di tegandoo yërëmante di dimbalante xam ni fii barab la boo xam ni dañ fee jaar te li nu fi andi mooy tooñ bu amoon ca ca ca ca sunu maam yewoon ca ajana sunu borom andi nii fii du fóot ak ñu war a waajala sunu bopp ngir dellu foofee nu jóge woon kon foo xaju fi caaxaan xaju fi taxawaalu xaju fi bañantu xaju fi niiroo ak ngaayoo xaju fi fitna xaju fi nañ sax ci jàmm ku ëllëg sax ci liggéey jaamu yàlla liggéey Sëriñ Tuubaa te boole suñu bopp muy benn wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu